saa <laughs> saa muuma laa ko tegoon muuma xam nga fan yi ñu ngi ci campagne yi siifuruñ dara waaye démb laay falax ba yàgg rek vidéo bu may dajal muy Basiiru Kebe ci laa xam ne waa ji day wax da boole waa bañ bëri mu boole news maanaam Abdourahmane Diouf da leen a naroon a news jàkkaarloo bële ñu tappale ba daw ba Abdourahmane Diouf ñuusu leen news yooyu nag la bo laaj Basiiru Kebe mii boole news leen ko barke alxuraanu karim gis nga euh, politique bii ñu nekk nii jëm ci nii ku amul xam-xam mën ngaa réclé fanweeri at ak ñeent képp la yor xam-xam képp waaye sa waay buuba bëgg koo jaay affaire Kaana ak xam nga loolu la sa waay di nappee buuba ndekete euh, nguur see ko gën a miin Amérique barke alxuraanu karim jàpp leen ci jàkkaarloo bi di leen wittaqi dëggam di leen wittaqi dëggam ndeysaan le président Ousmane Sonko yàlla na sa jàmm yàgg barke alxuraanu karim gono yu ndaw nga ñu indil yu am xam-xam Basiiru dañ leen a soxla ci plateau yi dee leen ci dem parce que yéen ay ci manipulateurs yi faaw ngeen di dem ci plateau yi di toroxal gars yi parce que gars yi amuñu xam-xam amuñu idée dàkkasante samp jeeg lañ bëgg a def te réew mi samp jeeg doxatu fi xanaa gisoo leen meeting yi ni mu demee le président Ousmane Sonko nee na fii ci ci kii ci arène polotique bi ku amul xam-xam waroo fi don leader waroo fi wax waroo fi don candidat xam-xam lañ soxla débat d'idée indi programme loolu nga indi démb ci plateau bi yalla na sa yag yàgg allah ju njuga kebe bi sama sama sama sama yaay jee sa badjan nak sama sama yaay jee sa badjan ya so do ni jaay nga ndax man soxna momi moy sama badjan man hmm. le monde wa ranki gama don wax le monde wa ranki gama don wax mon dogo ranki de berarti Al-Quran saya fude fude kurelu efel ya sirgi am ngeen problème de aw ndafa day influenceur de ni ma gise yi am amna ñun tudde won influenceur républicain xamu kuy seen président way ngeen xam ne ngi seen kaw day influenceur day activiste wu te man ndafa li ma gëna metti ci mom moy gaarwaale mbay pex la doon di audio yek appel whatsapp yi ban waji dama yema day influenceur yi wude yeen influenceur yi am ngeen problème ndax am ngeen gan te waa ji am connexion am jot keur gu yamb lang la yor tok Maroc <laughs> te ngeen de téméré vidéo ak audio dina ko dugal <laughs> ay sun influenceur bi barke alcorane le président sama jongo ñun mënu la bay ya jëlé waji ci président ya jëlé waji ci bour ci dictateur <laughs> soppi ko ab influenceur Damjat. Sare gen konek so habu dai lambar ke al quran mara gai so habu gen kaya dia len dugu lik ujo aki video so habu dugu man Mampenda mu ne na rebelle yi waaw merci beaucoup Mampenda mais sa tour bi moo la moo la moo la moo yàq sa biir parce que bi ma gis ma nga ne euh, Mampenda ma gis Mampenda euh, vraiment euh, loolu man du ma a tontu dama bàyyi dama bàyyi ñi may seet ñi may ñi may seetaan dama bàyyi ñi may seetaan ñu ñu bind la ñu tontu la ñi may seetaan ñoom ñu bàyyi la ñu dama leen di bàyyi ñoom ñu bindi tontu la parce que Mampenda su ma déggee maam. maam Penda vraiment euh, maam boobu waxuma Penda mais maam bi daf ma dafa am daf may daf may gêner donc euh, yow si tu es là de me dire encore tu prononces le mot bu fekkee yow sa papa sa yaay du mbaam moo ko kat li ma bëgg a wax si mbir mi nii nii nii Casamance Casamance ku gis ku bëgg gis. culture africaine, culture de l'Afrique entier nga Your Hol Kazamas. lépp la bolé. mais li ma neex ci mbir rek déclaration de Sédina, le premier ministre Ousmane Sonko Li vraiment képp ko Casase rek ak les vrais sénégalais ñoo xam ne bëggatuñu dégg ay ay ay affaire rébellion qui wax li en 2019 je suis Sonko campagne à Bignona wax nako fofu ñun le jour qu'on arrive au pouvoir affaire bi dinañ ko man je sais que c'est mes parents c'est mes parents qui sont dans la brousse c'est mes cousins c'est mes neveux c'est mes etc etc parce que quand tu es dans la dans une dans une dans une dans un village ñi fa nekk pas vous êtes des parents donc le moo Ousmane Sonko ne man je sais que c'est mes parents c'est mes c'est mes etc, etc cetera et ñoo nekk si àll affaire bi dinañ ko régler té ils sont en train de le régler parce que mom wax na ko balaa campagne bi commencé mom ak Bassirou bobu nonu projet bobu Bassirou Diomaye Faye la tuddu le président de la République bu len ko faté mais lima ma gën neex si information bi mooy na sénégalais yew na nit ñi yo xamné ce sont des impolis ñu xam lan moy réalité bi moy lan nga tok rek xol gis parce que il vient de la Casamance nga ko rebelle Ousmane Sonko Sénégal loi il va bien sanctionner continuer la loi va très bien sanctionner nit ñoo xamné lolou la comme euh, euh, communication lolou dafa jeex lolou parce que ku rébellion en Casamance waxuma vous ne dëkk pas ku la rébellion en Casamance parce que tu n'es pas en Casamance tu n'es pas en Casamance si tu es dans dans dans la Casamance doo à faire rébellion doo gis que tu nga prononcer le mot Il y a des familles qui sont à Dakar les familles de la Casamance qui sont qui sont à Dakar affaire banditisme rébellion c'est ce di fa donc il y a encore tu sais que ñii psychologiquement avec l'homme mën a ils sont en train de souffrir vous êtes des rebelles et toi tu dis que tu es sénégalais Ousmane Sonko le premier ministre le chef du gouvernement lolo na guerre Il a fait la guerre complètement a <clears throat> yépp la waxal si que ici c'est la réalité mour prononcer le mot rebelle te dit que tu rebelle Demain nga porte plainte ko parce que li on doit tourner la la page merci beaucoup Hans, oui bonjour li on doit tourner la page mané nous la ñun depuis notre naissance on n'a jamais vu un rebelle benn raben musuñ ko gis mais dañ ko dund parce que bo nekké fi nga dégg ay pumpam pumpam pumpam loolu ça te traumatise mais ñan ñoo nekk si kanam di yépp donc li fi mo foofu mooy question bi affaire bi bo déggee Ousmane Sonko demba ba lu mu ko don wax tu sais que affaire bi def ko metti tu sais que li def ko metti te c'est pas c'est pas n'importe qui ñoy nekk diko wax c'est les politiciens ñoko bëgg politiciens ñoo ñoo langage de campagne électorale bi motax wallahi Ousmane Sonko dafa am un ak Ousmane Sonko dafa am fulla ku bañ koy bañ rek nga ne ko wa man ak ak parce que man muy dox la nga bañ Ousmane Sonko on sera d'accord avec toi comme les ma len di la Casamance s'est basée en trois parties. C'est la région de Kolda, la région de Sédou et la région de Ziguinchor. L'Ouliep, <clears throat> avant c'était la Casamance. Merci beaucoup, merci beaucoup les gars. Merci beaucoup Pap. merci beaucoup Gaël, merci beaucoup, merci beaucoup euh, c'est euh, euh, l'appui. Donc la Casamance, comme les Maléwak, c'est divisée en trois. Ousmane Sonko Dembo de Fadougou dans la Casamance. De Fadougou dans la Casamance. Mais l'Imaner, c'est par Kourbini, l'Imaner, si li wax Casamance si li ma neex si lu conversation dem il faut qu'on termine ça une fois pour toutes parce que Macky Sall yi di l'affaire de la Casamance. Pourquoi je vais vous dire Macky Sall mo en Casamance ça ne fait même pas trois ans Macky Sall mo taxaw devant tous les casassés. parce que tu es le chef suprême de de la de la nation tu es la personne la plus surveillée, tu es la personne la plus, euh, euh, euh, je peux dire, à mon structure, devant tous les Kazassés. Si vous voulez intégrer 100% dans le Sénégal, il faut que vous votez le Benno Bokyakar. Moussaga, tous les, tous les Kazassés, Mounibi Dakar. Ousmane Sonko Dembo, lol la wax loolu dafa war merci beaucoup gars merci beaucoup Aaron euh, Aaron bu merci beaucoup tapote len, tapote len, tapote len, nous comptons parce que T'es waxtaan bi fi de dafa am importance du waxtaan politique mais waxtaan pour les Sénégalais là. Macky Sall loolu wax na devant la devant les Casacé mu regardez balancer les c'est-à-dire ñaar discours yi ñaar discours yi yéen xool leen ko rek kan moo kan mo nek pour que le Sénégal nek ben kan Ousmane Sonko wala Macky Sall Macky Sall ñëw Casamance devant les Casacé mu ne je sais que vous êtes des rebelles Si vous bëgg intégrer 100 dans le Sénégal da ngeen da voter sinon ça sera difficile. et Ousmane Sonko ñëw en Kazamas aujourd'hui hier mu taxaw devant les Casacé en 2019 mu ne man quand nous serons ici au pouvoir affaire rébellion yi dina dugg ci biir àll ñi fe nek bu que deux personnes la ma ak ñom waxtaan mais yëmul fofu dem ba dafa def discours bo xamné euh, vraiment ñun ñëpp dañu soulagé won doomu devant toi rebelle demal nga porter ko plainte ñu pourri dans dans dans les prisons du Sénégal. li mo fa nek Ousmane Sonko a lancé arrêt donc képp ko xamné da nga waxuma la dans des réseaux sociaux nga bind mu nga ne ma tu rebelle tu sais très bien que euh nga ma sori mais kep ko xamné ne tu sais que jàkkaarloo la wala mu def ko discours am demal nga dem porter ko plainte te sais que li Ousmane Sonko wax dem ba ñi doomu xaraam yi ñoo xamné ce sont des petits politiciens ñi commencé di di di discours sur la Casamance affaire rébellion di di dugg ci ay détails yo xamné ça ne concerne pas dinañ arrêter ils vont arrêter parce que ba son Sonko deful lii tu vas voir que ni duñu politique dara bu dul ay ay affaire militaire ay affaire politique ay affaire de la Casamance ay affaire rebelle loolu moo wara a jeex te je crois que dafa guerre. parce que Ousmane Sonko lu wax c'est très simple boo defee politique nga def campagne nga wax ay affaire rebelle C'est qui nini nii da nga lay xoolaat da nga lay plainte nga jëm nga pourri en prison parce que Lolo, il faut que les gens mettent en tête que de la guerre tubaab yi tout babi, ngeen gis ni ni yi il n'ose jamais il n'ose plus revenir mu Carlo, ak nit ku ñuul mu yow tes parents sont des esclaves Tout yi lu def du mal aux africains du taxaw mu la mu vous êtes des rebelles et vous êtes des esclaves loolu mo wara a en Casamance ça fait mal wallahi billahi tallahi man je ne sais même pas lan mooy rebelle mais de naître de de de d'être en casa d'être un vrai Casassé quand je vois quelqu'un me prononce ce mot là oh ma lan mooy rebelle je ne sais même pas je les ai jamais vus j'ai presque 40 ans mais musuma gis benn rebelle sama bët musuma leen di gis je ne sais même pas fan la ñuy mais quoi wax affaire rebelle sama sama kanam daf may metti ba fu métti métti bii dal donc loolu la Ousmane Sonko dem ba mu wax mu ne loolu c'est fini tapote leen ngeen partagé live bi tapote leen ngeen partagé ko parce que li muy lu ñuy waxtaanee fii dafa am importance dafa neex te nañ ñëpp war ñëpp war nañ ko digg man dama leen di ne quand je quand quelque rek man dama leen di surveiller c'est-à-dire après laay ñëw di ko décortiquer Ousmane Sonko a clos le débat hier débat bi dafa clos. De son parcours dans la Casamance j'étais content parce que euh, li ma hier Sédu n'était jamais avec Pastef Sédu n'était jamais avec Pastef et il y a les DAFNA, les Séduis sont réveillés ils ont compris mais d'où question ñu nous parce que région de côté la bas ils ne sont jamais avec l'opposition même bu que l'opposition mu ngi ci dëkk musuñu nek avec l'opposition té Sédhiou moy région les régions bo xamné mo gën retardé dans le Sénégal té lolu aujourd'hui buñu ko gissé avec Seydina Ousmane Sonko ñu and avec le futur président de l'Assemblée nationale euh, euh, tonton Ayib Dafé vraiment diko accompagner parce que bu len faté ko moy euh, euh, il est de Sédhiou <coughs> ñu accompagner ko dem ba gis nañu ful bo xamné ne ñun ñëpp dañu contane dañu santi yalla on sait que la euh, les Sédouas sont revenus sur terre, sont revenus pour comprendre que la réalité c'est ça. li donc donc la Casama, c'est complet pour Ousmane Sonko foule bu dit gis Sédhiou ñu dem gis ko à Bounkiling sur son passage si Zigenchor, ne eh ñun ñooy maam bi ñun ñun le chef lu am Ziguinchor musul am fenn lu am musul am fenn musul am fenn mané Ziguinchor a montré à Ousmane Sonko que tu étais tu es né tu es né à caisse ta maman est de caisse et tu es international dans le tu es vraiment tu es yow Sénégal comme li sénégalais wax Serigne Fallou moy Sénégal mais Ousmane Sonko moy Sénégal parce que Ousmane Sonko fo do rek mu fofu gis nañ ñoom see ñoom Cheikh euh, Bara Dolly ñu commencé à créer des liens parentés avec Ousmane Sonko c'est normal et Ousmane Sonko arrivé à Ziguinchor suñu mbokku Ziguinchor yi les femmes de bois sacré ba léegi am na ñoo xam lan bois sacré ba léegi am na ñoo xam lan bois sacré bu c'était les blancs bu fekkee li am à Ziguinchor bois sacré bu fekkee tubaab yi ils vont le conserver ils vont créer des maisons yo xamné ni nit ñi ñoo visiter mais comme c'est nit ku bois sacré bi nit ñi nit ñi dinañ ko fooyee ñu japp ko fo xamné fo kay la après ñu dem à un certain moment dinañ ko faté. mais bois sacré moy lo xamné c'est de l'histoire Bo leen déggee ay euh, Aline Sitoé Diata ay des grandes personnalités de la Casamance bois sacré la ñi xam ñun Casamance bois sacré moy lo xamné vous devez le savoir école yi xalé yi dañu wara a xalé yi ñu xam lan moy réalité bois sacré et on a vu des femmes de de de les femmes hier à Ziguinchor de la bois sacré ñom ñoo jël affaire bi tàkk ko si si c'est quoi Ousmane Sonko gis ngeen ko gis ngeen ko li moy suñu culture li moy la Casamance li moy bois sacré ñoko tak ñu solal ko Ousmane Sonko mu ngi ni il est Ousmane Sonko fini boko boo rek tu sais que fi amul zikzak amul loo xam ne tubaab yi ñoo inventé mom il est revenu il est devenu en casacé 100 merci beaucoup Awa Awa cedi merci beaucoup donc li moy la Casamance bo gisee se rek ti, c'est-à-dire tu es fier d'être casacé Ousmane Sonko dafa indi ben harmonie bo xamné ne ñun ñëpp képp ku rek dem tu fier képp ku net en Casamance dem fier képp koo xam ne tu as des parents en Casamance da ngay fier donc lii mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko lii la bëgg Ousmane Sonko bi ngi leen di fal sept mois ni ñi nekk na fii dinaan sept mois defoo leen dara mais kenn musul taxaw dinaan sept mois demoo seet si sa yaay en Casamance. kenn taxawlu dina ko sedina Ousmane 7 mois demo sept, sa en Casamance demo 7 les casacés ñoo ñoo en quatre en pour que Ousmane Sonko nga nga fi musul taxaw def wax ko discours les petits les petits opposition ñi fi musul taxaw ñu ne ko nit 100 ñi ko protéger demul demul parce que lu ñun la on ne connaît pas. xamu xamuñu lan mooy naafeq xamuñu lan mooy lii moo tax les Casacé sont cest à dañuy continuer seen activité xam nañ tôt ou tard Seydina Ousmane Sonko dina fi ñëw. xamnañ to ou du Casamance moko fal du falluñu ko pour mu défendre la Casamance mais sinon dañ ko fal pour mu yobbu Sénégal ci kaw Sénégal moy la Casamance Sénégal moy le Sin Saloum Sénégal moy Saint-Louis Sénégal moy dans le Fouta Sénégal moy Dakar Sénégal moy le Petit Côte Sénégal moy Gambie donc Ousmane Sonko dañ ko fal pour mu le ñu Sénégal pour mu defaral ñu euh, euh, euh, Afrique donc tapote leen tapote leen continuer loolu Ousmane Sonko sept mois bim mu demul Casamance les Casacé dañoo continuer si leur acte activité mais dëmb on lui a montré que Ousmane du Casamance ñoo la fal Ousmane sénégalais ñoo la fal pour nga liguer Sénégal absence bi nga def fi Casamance jàpp ñu la dara on sait que te ngay liggéey te ñun on sera derrière toi on est derrière toi dinañ la jox suñu suñu suñu suñu carte cent pour cent cette fois ci Casamance ba ma fa dégg ñi euh, euh diw am na benn vote fi lolu dina ma jaxal c'est assuré la Casamance c'est assuré pour pour Kolda aujourd'hui nous sommes dans le Fouladou dans le Fouladou Balantak Fouladou Pakao Balantakunda ko ci Fouladou Pakao Balantakunda le Fouladou compare nous, on ne parle pas le Fouta. Je vais vous dire la différence de Fouta et le Fouladou. Le Fouladou, ce sont des peuls de la Casamance, les peuls de Kolda, les vrais peuls qui sont là. Ils ne, c'est-à-dire, de nous mélanger d'Arangen Balmanaka parce que man côté bobo, beau expliquer, il faut que, ouais, d'autres l'en ouais, life, life be, life be stable, s'il vous plaît. D'autres l'en life be stable. 10 fleurs, 10 fleurs, ngen, ngen sandi, life be mon stable, parce que l'on l'a demandé. Donc, l'on demande de cognan pour que life be mon stable parce que je peux pas comprendre comprendre. À ce niveau, je suis à 90 personnes. Merci beaucoup, Guy. Donc, Mampenda mu rebelli Waouh, merci beaucoup Mampenda mais ça tourbi mola mola mola moi la la parce que bima ma gis ma euh, Mampenda ma gis Mampenda euh, vraiment euh, loolu man du ma la dama baye, dama baye ñi may seet ñi may ñi may seetaan dama baye ñi may ñu ñu bind la ñu tonto la ñi may seetaan ñoom ñu bay la ñu dama len di bay ñom ñu bindi tontu la parce que mam Penda suma ma mam mam Penda vraiment euh, mam bobo waxuma Penda mais mambi bi dafa ma dafa am daf may gêner donc euh, yow city tu es là de me dire encore si prononce le mot la rebelle bu féké yow sa papa sa yaye du mbam